am ndaje mu yaatu lëkkale woon jëwriñ yi ngànk kuréel gi di sàmm warmaay Touba moom lañu daal di amal ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi nekk ci jannatul Mahwa gannaaw ay yëngu-yëngu yu nemmeeku ci biir réewum senegal ci àjjuma gi bam laaloon ci dëkk bu tedd bi di Touba kuréel gi di ko naqarlu bu baax a baax. barki démb ku ne gis na li fi xew muy manifestation bi nga xam ni amoon na ci réew mi ñu boole ci nag dugal ko ci biir Touba gi loole di loo xamante ni bi naqari na sëriñ bi lool. bokk na ci li nga xam ni moom lay feddliwaat ba joxaatoon ndigal Cheikh Mamadul Bachir moom sëriñ Abdul Xaadir Mbakke mu jotalaat ndigal loolu ci sëriñ bi mu xamal ko ni ko noonee mu doon digle ak a tere ñu moytandiku lu jëm ci wàllu yëngatu politique ci dëkk bi mi ngi koy feddliwaat tey nag ñi fi nekk ñëpp ak njabootam la bëggut kenn ci ñoom bëtam di xonq wala lenn di ko naqari. kuréel gi nag ñu ngi dànkaafu ak fàttali taxawaay yi nga xam ne ni amal nañ ko. ngir lépp lu sëriñ bi tere ci dëkk bi ñu taxaw ci temm ba loolu du fi amee. ñun ñëpp jekk nañu te jaral nañu lépp jaral nañu suñ bakkan jaral nañu suñ alal jaral nañu suñ njaboot jaral nañu lépp bis buñ demee ba xam ne lii munta ñàkk fu waay mën a nekk ak koo mën a doon ak noo mën a taxawee. danañ la fekk foofu te danañ ko lijjanti suñu bopp mboolem kilifa yi nga xam dañoo bokk ci yoonu baay Fall jekk nañu te taxaw nañu dara ñu ci dëkk bi liñ fa war a xam yëpp xam nañ ko loolu nag buñ àggee fañ ci war a àgg luñ ci war a lijjanti danañ ko lijjanti. Serigne Dame Soda Fall yore kàddoog njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall mu ngi laabire mbooleem taalibe yi ngir ñu àndandoog Serigne bi sàmm wormaay dëkk bu tedd bilee kon loola la am Amdi Fall mu Serigne Modou Mbenda di woo boppam di woo njabootu Cheikh Ibra Fall gii di woo mboolem ko di taalibe Touba gii ñu waggar waggaral ko sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha ñu sàmmal sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha kàddoom gii ñu sàmmal sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha dëkk bii di tuubaa waaye ñu sàmmal Cheikh Modou Mountakha war ma ji nga xam ne sakku na ko te am yaakaar si nun taalibe yi ngir nu kenn ku ne fa nga féete nga taxaw tem ba kenn du xotti war ma si sa jëmale ko si Touba. ci fàttali kuréel gi di sàmm wormaay Touba te xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké dénk ko njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall tàmbali nañu nag seenub liggéey ci ak noso bu mat sëkk. seen yitte du leen lu dul saa su nekk. lépp lu jëm ci wormaal dëkk bu tedd bi di Touba ñu taxaw ci ba mu mat sëkk.